monsieur le ministre du du pétrole et des énergies euh, sénégalais yi dese nañu kontaan ci li nga xamante ne si moom mooy wàllu électrification notamment sur la cherté du prix monsieur le ministre bi ñuy ñëw ak système woyofal je pense bien que sénégalais yëpp dañ ko épouser woon parce que début bi ñëpp dañ ci doon gis seen bopp parce que li nga consommé loolu ngay fay mais bu ñu demee ba dugal ci tranche yi yaakaar naa ci la problème bi am au lieu mu nekk oyofal mën nañu wax ne diisal la gën a nekk ci li nga xamante ne si moom mooy sénégalais yi moo tax ñu lay wax foofu est-ce que du ngeen xoolaat ancien système bi ancien système bi c'est-à-dire ñu bàyyi nit yi kenn ku nekk li nga recharger rek yow nga consommé loolu ñu bañ te dugal ay système tranche parce que boo dugalee système tranche da nga yaakaar ne am na couche booy favoriser au contraire daa am ñeneen ñoo xamante ne si ñooñ lañ ciy défavoriser beneen bi muy dellu ba léegi ci électrification bi ñuy wax euh, DG bu euh, Sénélec que ni am na communes yoo xamante ne si waxoon nañ ko fi daaw ak ay villages yoo xamante ne si muy dellu ci Lamel Woré ak Koutango boo xamante ne si waroon nañ ko électrifier ñu waxoon nu ne dugal nañu ko mais depuis lors gis nañu ne yëf yi avancé wul ñu bëggoon xam lan moo waral blocage yooyu beneen bi dans la commune de Gandiaye ñu wax ne dafa am ay zone yoo xamante ne si bambara gànjaay gànjaay du moins ak njóobeen yoo xamante ne si dañu nekk ci noir total ñu wax ne à chaque fois dañu leen di wax ne dinañ ko électrifier mais dañuy gis ne du am suite boo xamante ne si suite bu favorable lay doon monsieur le ministre beneen bi nga xamante ne si moom lay wax mooy ministère bi nit ñi dañ ko jël et c'est c'est désolant de voir que ñëpp dañu jël ministère bi bëgg ko résumer ci électricité kese alors que ministère bi am na ay parti yoo xamante ne si yu am solo la d'ailleurs ñuy saluer le travail de ñi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk Petrosen ak waa SAR parce que gis nañ ne ñi ngi def liggéey boo xamante ne si liggéey bu am solo la notamment la Petrosen parce que élargissement bi ñuy commencé di def di commencé di def maillage national dans le Sénégal pour permettre nit ñi ñu mën a di jënd carburant ba pare ñu ñu rénover système bi créer ay application et loolu c'est à saluer mais li ngay jàpp li nga ciy gis mooy assez de communication bi ngeen war a def ak éclairage bi ngeen war a def ci bopp sénégalais yi ba ñu adopté li nga xamante ne si moom mooy réforme yi ngeen di indi notamment dans le système de l'électrification loolu gë jàpp naa ni dafa des moo tax il faut ngeen communiquer largement sur ça bu ko defee sénégalais yi mën a comprendre beneen bi nga xamante ne si moom laa wax monsieur le ministre muy dellu ci choix ERA j'aimerais comprendre pourquoi le choix de ERA dans le système de l'électrification monsieur le foofu laay jeexalee may laaj pourquoi dans le programme 20 21 optimisation du système d'électrification ñu gis ne budget bi ci foofu dafa yéeg may laajte qu'est-ce qui à l'origine de cette hausse je vous remercie